Mm-hmm. da ko ci jàng mm-hmm. ngoro la goo xam ne mm-hmm. moom moo dox moo maye waaye takk ga fa mujj mooy dorage ña fekke woon ñu tàggoog seen sago mu dem ak lañ am loolu daal ma mujj daal wala mbir ma mujj hakka nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam xaal mu ne alja ani loru looxoon na ma mm. hukumu dërin hatteb jamono xasitin bu daa ji jeng mm. xasata jeng na bokkut ak xasata jub na mm-hmm. jamono mu jeng mi mm-hmm. moo ma tegoon njengam mm-hmm. ba loru looma ilaan ante jana jëm ci ba ma forlu hat abda wasita suusi wasi ba ma ne damay dem wasi fa xasattuha ma dal de jublu waasit ma dem waasit ndax toll naa ci soxla man borom mëna suma soxla waana te man arifu den may xam bi haa ci waasit sa kanan dal kenn koo xam ne ca laa de war a jaari loolu amoo ko fa sa kan mooy koo de jaari ci moom maskan mooy barab bi ngay jaari xaama ko ku may jaadi xaama ko kenn ku may jaadi itam wala ma halaltuha ba ma wàccee waasit xululal hóoti kem wàcceeg jën bil bayda yi ci xàlla xam nga tumaranke dëgg la ndax jën rabu ndox la ba ma fa wàccee tumaranke gu tax mel ni jën woo wàcce ci digg àll dégg nga wasaarati ak kawar al bayda bu daa ji weex filimati ci njañ asawda bu daa ji ñuul mm-hmm. wala kawara bi jaw ci biir nañ lu ñuul mm-hmm. ba loolu amee xaadani xomad ma mm-hmm. alhamdu cër an naaqisu bu daa ji wàññeeku wal jëddu ak muut an naaqisu bu daa ji jettu ilaa xaanin jëm ci hôtel boo xam ne yan ziloo dana ko wàcc Mm-hmm. wax la mm-hmm. mm-hmm. léegi nag bi ma demee dama dem ci ab hôtel pour jël fa chambre ne fa hôtel bi ne ndeke moom ñaare tànne bi nit ñi daal dañuy faral defa en ah, ay ndox dajee am nekk ay nit ñoo xam ne daal tabaarkalla ñu demee daal lañ demee ilaa xaarin jëm ci hôtel boo xam ne yan siloo dana ko wàcci mm-hmm. su daadul afaqi way sànne kuy gox yi mm-hmm. wax rifaq ak way jaxasooy setti si wahu mm-hmm. wate moom hôtel bi nag li nadaafati makaanihi ngir set barabam wa daraafati sukkaanihi ak ñaw ak dëkkam yu raxibu dana loo ak xariba aji tumaranke fi itanihi wuy sii te dana ko fàtteloo xawaa awtaani yi soppa ay dëkkam hôtel bi nag kem ni muy setee ak ñi fi nekk niñ doxee niti àddina tax na boo ñëwee daal te nga xam ne xaw nga bakkane dal fi moom moo lay gënal dal feneen boo fi dalee sax day boo amul sax da fàtte sa gannaaw hôtel boobu ci laa dal waaw woowu te hôtel bi mhm. li nafaafati makaanihi ngir set ak barabam mhm. wa daraafati sukkaanihi ak ñaw ak wéy dëkkam mhm. yu raxibu dana mu xemem loo alxariba aji tumaranke fi itaanihi ci jàpp gu muy dëkk wa yunsiihi te day fàtteloo ko tumaranke awa awtaanihi sopp ay dëkkam fastafrattu ma beddee ko min wu ci ba bi hujratin cib néeg mhm. mu ne ma jël fa sama néega bopp mhm. bokk ak kenn néeg mhm. ndax daanaka mat laay mag néeg laay mag fees na néeg daanaka bokk néeg ni jarul fi ujratin ci fay da jël ci néeg yu seer ya nag ndax ñoo gën a bakkane mm-hmm. defee wu ma ko noonu mm-hmm. dama seet ne boo xam ne man mën naa koo fay mm-hmm. man fa maa kaana nekkul ilaa kalam hi tarfin ndara de kem gendee ku gis aw xatti harfin walla kem rëdd benn haraf bi ma jëlee ne bi ba dugg daal dama toog daal diit bu gàtt rek xatta samiatu ndare boo dégg naa jaariya sama dëkkandoo bayta bayta ci néeg ak néeg ki nga xam ne maag moom ñoo sosoloo néeg ñoo sosoloo pièce daal dégg naa ko yëqulu mu ngi wax li na siilihi ñaal aji wàccaale fil bayti ci bi ki bokkat ci ki ma dendat mu ngi bokk nit néeg dégg naa mu ngi wax ki bi naan ko xum jogal yaa bu ne yow sama ndaw mm-hmm. jogal mm-hmm. laa xaada yàlla bu jékki jëddu ka sa muut yàlla na nga xam sens nag mm-hmm. boo joge daal yàlla na sens jóg wala te yàlla bu jóg jëddu ka sa noon te boo joge képp ku la yàqal yàlla na toog jogal wastasib te nga àndaale sal waji borom xar kanam albadri yi bay ko jug wurus kiini ne ci néeg bi xamee mm-hmm. cëlmaye li mel ni wuru mm-hmm. kon ngay àndal mm-hmm. wallaw ne ak melo ak durri ko jug durru melokaan yi mel ni wuru su durru wal asli tey borom cosaan a naqi set borom cosaan lu set bi wal jismi tey borom jëmm a soqi yi borom jëmm ju ñàkk sens bi li mu wax mburu la jogal te jël aw mburu yóbbaale loolu lay rek allazi ki nga xam ne xubida jàppees na ko bankees na ko mhm. war nu sira te firees ko mhm. ndax xam nga ne mburu mi buñ koy lakk nu ne dañ ko ko mhm. nu ne dañ ko ko fuddee ba firin ba firin bi néew doole ñu door koo lekk bu ko duur rek bu ko nit lekkee du baax ci moom ndax firin bu ko dara wulliwut dafay war a seere yu doyo doy waar dafay war a seere yu doyo doy waar mburu bi nu ne dana ko def firin bi bala mu koy dégg nga mm-hmm. wasu jina te tëjees ko mm-hmm. wasu hira te génnees ko mm-hmm. wasu xiya te nandalees ko wa futima te feralees ko dégg nga wóodu xela te taxal tal tabbalees ko an naara safara baadama lu ci gannaaw bu pesee feef mu ne dañ ko ko def ba lañ koy lakk àndala koobu su mar ku topp nga gaaw ila sooqi jëm ca jama nga gaaw a gaaw dem marché ragal ma soo xem gaaw ak ku ñu soppaloo mm-hmm. dem deminu ku fa am soxla te yàkkamti laa war mm-hmm. fa qaayit nga wattalante mm-hmm. bii ci sulwatil badri bi allaaqiha aji jur aji ngerte al mulqiha la daa ji ngerte loo soo demee nga joxe ko ñu jox la koo xam ne dafa hëmb te day hëmbal al mufsida ku daa ji yàq mm. al ku daa ji héwénal mm. donc koo xam ne danay jagal mm. dana yàq al mugmida ku daa ji jàqaloo ku daa ji bégloo mu doon koo xam ne mën naa bégloo na ko jàqaloo al muanniya ka daa ji sonnale al ka daa noppale mën na indi coono mën na indi te sa biiri kay borom ak fokkat mm-hmm. al muhriqi bu daa ji lakk mm-hmm. koo xam ne bu fokkatee mm-hmm. boo soriwut danga lakk wal tey borom mbéemut al bu daa ji leer koo xam ne bu demee bay jur leer lay jur wal lafdi tey borom baat al muqinaay bu daa ji noppi la bu daa ji doylu doon ko xam ne bu kàddum jubee ñëpp dégloo rek la ñuy def wa nayli mm-hmm. te borom may mm-hmm. al mumtin gu daa ji yóbbale mm-hmm. ki maye may gu doy gi alladi ki nga xam ne ida turiqa bu fëggee seeko raada mu dënn wa baraxate mu mela wa baaxate mu tudd bil xuraqi ci lakkat wa nafasate mu sànni bil xiraqi ci ci sagari wa nafasate mu tëbli bil xiraqi ci sagari xam nga lim bëgg a wax jëlal mburu boo deme ca marché ba soo ko joxee mm-hmm. kii jaay doju taxaleekaay bi mm-hmm. jox la benn moom day jaay taxalukaay mm-hmm. te mburu lay lay jëndee soo ko joxee mburu jox la benn waxtu yu bëri insha Allah mm. bi jox ko comme na ko jëndal almet gum taxalee mm. kem ni nga xam ne noonu la mellale mburu mi mm. ak ni mellale taxalu kaay bi mm. téeméer torop lu ñu tegu falam qaala falamma qarrat qaala xaaris nee na falamma qarrat ba dalee suqsiqatul haadiri puuritam aji coow mooy ki doon yónni ba mu ba àggal ci waxam mellalee na mburu ni ko mellalee mm. mu mellalee li mu war a jan ni mu ko mellalee mm. walam yabqa xam mm. ne desatut illaa sadaru saadiri ndare gongi aji gongew xam ne fi ne xanaa ki ñu yónni doxi soxla bi rek moo des ba mu waxee ba àggal xanaa ki ñu doxi soxla bi rek moo des wala maa xarrat ba dalee siqatun haadiri fuur itam aji coow mm-hmm. xam nga booy saw sa gémmiñ day fuur léeg-léeg mm-hmm. waaye boo noppee fuur boobu day dañ mm-hmm. muy kii wax ba mu waxee ba pare wala muy xate desatu ila sadaru sadir ndare gongeeku aji gongi xanaa kii ñu yónni dem doxi liñ ko yónni rek moo def bi loolu xamee barasa génn na fatan a kuni ak a waay moo génn ya miisul bi noom gën a mu jaayu mu ngee dox nag da jéngu wamama woote àndul ak moom ani sun benn wéttal moom kenn rek ànd ci yoon wi nag faraytuha ma gis ko modalatan muy gàllankoor bu xam ne talha bu dana foyee bilon xooli ci xel yi gis nga bañ kumpa déedéet rek daa sonnal borom xam naa jombut bu àndoon ak nit wakk ko ne ko lu ngeen a wuti ak lu ko jaayee doon na ci xaj waaye kii ñu indi te xoo ko mën naa waral mu ne dañ may yónni dama yàkkal ma gis ne lii moom coono dikk na faraay tuha ma ko on xalatan mm. on dolatan muy gàllankoor mm. talent boobu dana mu fayee dana xooli ci xel yi mm. wa tuxri te dana mu xiire bi du xooli ci tab bi il faut dooli ci neen fanta laxtu ma boyu fi asril kalami jeex fi asril xulami jeexi di guddi mbiru bañ kumpa xam nga day sonal nit rek donte man xamul may war a dox yi ah ma jóg topp gune gi rek li am bër a ngir li am bër a ngir naa xam fa wal kalaami maanaam wax ji xum wattasib sal wasil badri wallaw ni durri ni mu ko waxee ba fii daal man daal kii li wax xamu daal falam yasal dañul moom gune gi mm-hmm. yasan di dox mm-hmm. sans yàlla xabaar yi di kem dox ak ay njuum gure gi mu ngee dox doxinu jommale ka dëgg nit ku joŋe nit ku pànk falam yasal dañu mu yasan di dox sans yàlla yi di kem dox njuuma yi wa yatafaqadu te muy gendeeku nada idal hawa niiti mas ni si ñu rangale bitigi mu xool barab yi ñu bitig yi seen seen vitrine yi seen taabal yi mm-hmm. seen tafeer yi mu ngi seen lépp rek wa yatafaqadu muy gendeeku mm-hmm. ma bàyyi dal xawaat mm-hmm. mas nit yi ñu rangale ci bitig yi xatantaha ba mu àgg xenda rawaay yi mu topp rangi ba ci mujjenteel ga xam ne bitig bi bu jeexee dëpp lay mu àgg ilaa hijaratil qaddaahi jëm ca kay jaay bant yi jëm doji kay jaay doji taalukaay ya jëm doji kay jaay doji béy ilaa hijaratil qaddaahi jëm ca doji kay jaay doji béy fa naa wala mu jot li bàyyi doji rami kon mburu mu daal di ko jox mburu wa tanaa wala mu jottale ko minu ci moom xajaran doy latifan wu daa ji ñëwe mm. donc bu joxee mi tànn na mm. ba ci daal taalukaay bu rafet mm. mu dal di ko jël xaalis ne faa jibtu muhimu na lool nag min fatanatil mursili ci xelu ak yónni wal mursali ak xelu ki ñu yónni ah, man di ñi xamu nañ ko ci nit li wax ci ak doju taxalukaay bi mm-hmm. xel bu ko mën a daj melalee ko nii mm-hmm. ak itam niñ ko waxee nii kuñ ko nga xam ko ah man de xama daal ki yónni la war a gën a xéem wala ki yónni la war a gën a xéem waajibtu ma xéemu min fatanatil mursili ci xelu aji yónni ji ndax ni mu waxee yónentam bi wal mursali ak xelu ki yónni ndax ni mu xamee liñ ko wax waa alimtu ma xam ne annaha naka moom mooy wax yi sarojiyatun koju saroj la wayin lam asal doonte laajte huma booba laa xam ne sama waa ji moo fi rotte rek bu seet saroj yi doonte laajte huma ko ndax nit jëfam da koo wane moo tax alayna fanzuru baadana ilal waalimtu ma xam ne annaha naga lii rajiyatun wayin lam azal doonte laajtewuma wa ma kasabtu saxuma an baadatu lu may ma gaaw ilal xaani jëm ci hôtel ba muntali xale naan daaji boyi ci bopp man daal booba dëpp dëpp rek jëmali hôtel ba nangu ma dara kalma li am ngir naa xam kon a foofu mii dëgg dëgg sama dégg wala am solo ngir naa kon a foofu mii dëgg dëgg sama dégg pour daal man ni ma toll de ñun noonu la demee wala demee wu waal xartasa ndax jot na këyit ga sa mii sama fett fi tëkka huni ci gisaane xartasa mooy jam jamin woo xam du am benn këyit la bu ñuy diit jam ko ci digg kayit ga mm-hmm. te dañoo wax xartasal sëma ndax su ma tollale bi tollo naan bi waaw xartasa ndax jam na kayit ga si mm-hmm. tëkkawu ni ci gisaane sëmi sama fet wais ak ci mbetteel ana man farisun jàmbar laa fil firasati tollale mm-hmm. mu ne ban bis de waaye bis bii moom naa tollale bu tolloo ha tolloo daal wa isa ci mbetteel ana man farisun jàmbaar la fi ci tollale wa abu seydin abu seydin jaalisun aji jékki bi wasidil xaani ci dingre hôtel bi hëtt bi nga xam ne hëtt féexloo kaay la foofu lañ ko fekk mu toog fataha day naa ñu joxante busara lente xaa mbigam dajee bañ ne ko ha xaa kiitu yow ku nekk wax lu ah su fekkee wala déggoo moom na wante lool na maanaam na mante woon lool wata xarat naa ñi wet ñi wattalante mooy ñi joxante tahiyatal asdiqa ne yow ay xarit ñu ne yowante comme ni ay xarit di ne yowante bu ñu dajee ba dajee ha su ma mu ne ma waaw maa ana lan alladi mooy li nga xam ne naa bëgg a jot na mu ta sayal ta ba nga tàggaloo janaaba ka sa wàlla mu nu waaye ana lu xew ma nga nekk ci tumuranke gi rek te yow xamuñu loon ci yenn yi waaw ma an naa lu si mooy li nga xam naa ba ko jot na mu la hmm. ta sayal ta ba nga tàggaloo hmm. janaaba ka sa wàlla fa hmm. qultu ma ne ko ah, dahrun jamono rek xaala joj dammel wa jawrun ak njeng faada gu bëpp na ma mm-hmm. ne ko boo loroo mm-hmm. te nekk ay tooñkat xamuñ mm-hmm. ci yow benn ah, nga mujj ci daw rek ngay tës rek in jaara wa in taji sabran fa ma ahlan nuqam dama daan defee mu dawrun jamono haada juj gottina walla dammana damaat mm-hmm. wa jawrun ak njeng faada googu fa qaala mm-hmm. bi ma ko waxee nag loolu moo tax mm-hmm. fa qaala mu ne walla fii giñ naa ci buur bi nga xam ne ansala wàcce k mu almatara taw min alxamaami tukkee ji niir yi wa axraja te mu génne asamara meññat min al ak maami tukkee ji ko ëmb nag boobu di ko maa ngi gin ci yàlla mi nga xam ne mooy hibbi niiri taw mu fettal kàmbar yi meññet génn gin naa ci yàlla moomu ne laqat fasada yàqu na asamaanu jamono laqat fasada yàqu na asamaanu ma te matale alhamdu waanu noonu wama de ma te ñàkkees mm-hmm. almiawaat aji dimbale dimbale alkoon wallahu yàlla daal tànn tànn su ñu dimbali mais ni ma gisee jamono léegi daal mm-hmm. ku xeebu daal booy ñaan nga ñaan dimbalal yàlla bu mm-hmm. xeebu booy sukkandiku sukkandiku ci yàlla mm-hmm. waaye nit ñi daal suñu miinoon bu yàgg buy seete yàqu-yàqu yi tax na jar su kenn ko waxe la wax de laqad fasada yàqu na asamaanu jamono wa amma te matale mm-hmm. alhamdu wàllum noonu moo di ma te ñàkkeef mm-hmm. alme waan dimbale akoon mm-hmm. wallahu yàlla ram sàmm ci noonu waaw fa kee fa ab latta na nga def ba rëcc nag yow noo def ba génn nag fa kee fa ab latta lak nga rëccee mooy na nga def ba génn waala ay wasfayka ak kan ci sa ñaari melo yi aj falta nga fàndañoo tarable woowee su xàpp bi mm-hmm. ak su néew doole goowee su xàpp gi mm-hmm. na nga mën a def ba bawoo dëkk ba ba fi seetloo ko baax a baax mm-hmm. tarable woowee su xàpp bi na nga ko mën a rombee nit sa jëmm néewee doole na nga ci mën a doole baax si ittaxastu jàppoon naa allayla guddi xamiisan muy mm. guddi wa atlajtu tema yoor tema rañaan bi ci guddi xamiisan bi aji xiif mm-hmm. ma ne ko rafle bi dee moom dama daa dox guddi rek mm-hmm. su bëccëgee kenn du ma gis bu mm-hmm. guddee ma topp lëndëm xiif gi na dama ko doon muñ rek <laughs> xiif gi na dama ko doon muñ rek ittaxastu jàpp naa guddi gi xamiisan muy mbubb waa la ti tamarañaan fii ci guddi xamisan te aji xiif ñu dem tuuti rek mu ne faataqa mu sanaagal mu dal di sëgg yan ko su mbiram dana cëpp cëppal bant fil ardi ci mu ngi sëgg ni ku jë daal jël benn bant def ni def ni def ni wa yufakkiru mu ngi xalaat firtiyadil qardi ci sàkku la wal fardi ak maye mu ngi xalaat daal nu mu mm-hmm. ba ma am lu ma jàpp mm-hmm. ku ma xabal mm-hmm. su ma soqee koo fay ko wala kuy def te yàlla ma dara sa gën a mu jaayu xisa taman jaayu wi ni koo ne ak sa jege na ko xana sun la aw badat wala feeñ na ndoo ñaal ko fóora sun ay man mm. sun tuti mu jaayu mm. wane ne sotti na mm. ni kuy rab ba jekko rab wala ko am mu jaayu mel ni koo xam lu ma lijeen sotti na wa qaala mu ni ma xanaa de xat dafa aajo woon de bi xal bi ci sama ba nga man koo xam ne yëpp soo dana mu garbal jiraaka say jam-jam mm-hmm. waye ris mu dungal janaa ka sandal man daal dama xelaatoon toppatoo la fi soxna mm-hmm. subaa ñu mën teraange buñ la mayee soxna mm-hmm. comme ñu la dénk bakkan daal dañ la mën di dimbale bu baax a baax man daal dama xelaatoon dama xelaatoon ñu toppatoo la fi soxna ah ndax ñu mën teraange bi su fekkee diggaale nga ak ñoom surtout ñoom bakkan <coughs> mm-hmm. dootuñu la seetaan dañ la dimbali xaaris na wa kayfa ajma woon naka laa de boole xaaris mm-hmm. ne fa xultu ma ne wa kayfa ajma naka laa de boole mm-hmm. bay na xullin ci diggante gëx mooy xeew wa xullin ak niw doole dégg gum naa xutu la dara da dugg ci lu lay xamu la dara da dugg ci lu lay gàllankoor ci wut lu dégg guma ko bu kefaañ ma woon naka boole bay na xullin ci diggante gox mooy jéng bu may teral yenn yi wa xullin ak néew dara de bijji hen koy de wa man ana kan alladi mooy koo xam ne yarxabu dana mu xemem dullin ibni dullin kinaaya la ci kenn xamul te man kenn xamul ku may bëgg kenn xamul ma fi juddu te yoruma dara xamuñ lenn lu ma làmboo kon man munu daan si munu daan jabar fa qaala mu ne ma ana man al musiru may kii junju bi ka ci yow hmm. wa ilayka ak jëm ci yow hmm. wal wakilu te may wakil la ka ñaal wa alayka ak jëm mu ne wa déet yow kay hmm. li ci des sa wàll mooy nangu ne waaw mbaa nga ne déedéet waaye man ak ki ma laa boole yëpp maa leen di tax man mala wan koy war a takk mm. man may ki man mala lay li nga war a jox mm. te mala war a joxeel kan mm. suma loxo la nekk xaw ma nag dégg mu ne ma ara xanaa li xaaji woon na daal bi xal bi ci sama xol antu sahira ba nga goroanteer e man koo xam ne yow soo mu garbal di raaka say jam-jam wéyes dana mu dungal janaa ka sa mbagg hmm. daal nga man hmm. ah, dara ngi fi hmm. suñu la mayee jabar bu seqeeg ñoom bakkan dana waral xormay dimbalante dana waral yërmande dimbalante ma doon lu la xam xaalis ne fa kultu ma ne ko wakkee fa aj moom naka laa boole bay na xullin ci diggante gëx mooy kutum xeew xeew bu xullin ak néew li man yoruma dara te mm. dugg ci loo xam ne daf may ci dugg ci yenn mm-hmm. kooku du ma ko def wa man ana kan alladi mooy koo xam ne mm-hmm. na bu dana mu xemem mm-hmm. fii dullin ibnu dullin kinaaya la jëm kenn xamul daman fii xamuñ bu bëri bëgg fa qaala mu ne ma ana man al musir may kii junj bi ke jeew maa lay wane wane gis na ji way léegi ak jëm ci yow maa lay wane seetal fu la jibu del waawa wal mm. wakiilu samay wakiil mm. la ka ñaan la waan rek ak waral man maa di joxe can bi sama boor baax na mu ne ko waaw man ci li ma la naan ndax bëgg nga soxnaam ndéet mm. kooku moom yow waaw rek moo ci sawal man may ki lay wane te maa def sa lépp daal man maa koy taxaw hmm. maa am na diinal xawmi ànd ak aadam nit ñi hmm. jabrul kasiri mooy jàng ku ñu damm hmm. wa fakkul asiri bi ku ñu jéng waxtiramul asir ak hormaal aji handoo wasin sahul musir ak nangu laye aji junju ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne ko te fii nit ñu baax a baax ñoo fi nekk hmm. nit dikk fi daal tollu ndigante hmm. ñi dimbali ko ba mu weesu ndigante hmm. loo sin bi seen mbir la de diggaaleeg nit diggaale bu laaj xorma ñi doxal xorma ba nga xam ne ay gor pire ngi nii loo seen mbir la de naka doon itam xam ne yow mi borom xelaat la hmm. ñu nangu nga laajee leen biir hmm. la ngeen biir ñu topp ko hmm. seen biir la de affaire yi dëkkuma bi daal moom bu mu la jaaxal ñi daal aw nit la ñu baax a baax maa ànd na diinal xaw mi ànd ak lii aadam nit ñi fii jabrul kasiri mooy jàng ku ñu damm wa fëkkul asiri ak xob bi ku ñu jàpp wax fira munasir ak hormal aji handoo waxtin sawun musir ak nangu lahi biir ak aji jinju illa annahum law xataba bu labatoon ilayhim ibnu adhama ibrahim ibnu adham nit yàlla bu ràññeekoo ràññeeku la woon lool sax nag ku bëri ay karamaat aw jabala wala jabala ibnul ayham buur la woon bokkoon ci àllu jab nata yaakaar naa ne njël ooteeb lislam xam na lum ca fekke ñàkkule jiitante itam ak sayidna omar radiallahu anhu hasan ibnu sabitin daan na ko tagg islami ñooñu ku ci labatoon ci ñoom lama sabwa joobu duñ ko mayee jabar ilaa ala xamsi miati dirhamin ndara ci juróomi téeméeri daram yaxtidaa ngir roy bi maa ci li nga xam ne mahara cane woon na rasul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam wa aqada te mu bi ci moom an ki hata banaati say doomi jigéen yi mu ne waaye fii nag dañu xaw a seet ngoro amul ni nit di toll di noo mën a toll ci ah kan giñ lay laaj juróomi téeméeri dërëmi sëriñ Adama ko mat dañoo gis ne yonent bi ay soxnaam ñu hmm. ci ëpp loolu la leen andee hmm. ay doomi jigéenam hmm. kum ci maye loolu alaar ne um ànd ak ñoom law xataba bu la batoon hmm. ilayhim jëm ci ñoom ibrahimu ibrahim ibnu adhama hmm. mooy nit yàlla képp yaakaar hmm. su bëggoon ci ñoom jabar aw jabalatu walla jabala ibnul ayham mooy buur bi hëpp sañ-sañ su bëggoon ci ñoom jabar kon it lama sawa joowu duñ ko mayee jabar duñ ko sëylooxee illa ala xamse miati dir danaan can bi juróomi téeméer dërëm lay doon hmm. te te daal hmm. bi maa ci li nga xam ne maxaara canee naa rasul yonent bi bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. ay soxnaam ndax dañoo gis ne aswaaju nabi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci ñoom seeni can juróomi téeméeri dërëmi sariya la waa xada temu fase bi ci moom an ki xata banaa yu sayi doomam yu jigéen ma dafa mos de xutba wax ne xam na lu xew ci ngoro yi du ragal yàlla fala bàyyi leen ngoro yu seer yi ngeen a dem léegi ku ci mayee ti jigéen nga dogal ci can lu mu ëpp juróomi téeméeri dërëmi soriyan jëlee canam mm. soo ko fasee war la jaa nangu daal mm. xam nga nangu na ne jigéen xeewoon na xintaar te xintaar mooy ñu rey nag mm. firi der bi buy ko wul ba mu fees ndegam loolu sax yàlla jombale bu ko jigéen yow nga naan ko romb di juróomi téeméer da nga ko nangu Seydina Omar ne imraatun asabat wala asabat kat ma xaw yoon ma xaw yoon mu ne ko fii daal looy seen mbir mbaa xaare du daw du maara jëm nag xalaa ànd ak ànd ak yow sax nag lantu taala ba débbu la sàkku bi sa daqin ci can can gi sax nag dur yow lañ koy lay jarul daal ngay layee xama xalal wala tul jaat débbu la loru loo ila talaqin naka noonu de ànd nga xam ne defoo fi dara. Mm. ba mujj doo déggoo ndaw si ngeen di xaajoo. Mm. yëpp du ci am. Mm. affaire yi góor ba ne wut nangam. yëpp du la ci fekk. du la ci fekk. ma topp man sax bu xel si naa xutba. fi ma wax fi aqdika ci taxawaayu sa pas-pas. wa man ma aqdika ak dajewaayu sa mbooloo. xutbatan xutba boo xam ne lam tabtu xubbi wu doon. raf-xafangam bu bëgg dégg te keroog buñ lay may danaa xutba xutba boo xam ne kenn mosu ko dégg wala xutiba te xutba xeeful bi misliha ci kemen bi jamen ci mel ni mbooloo kon barabi takk yi bëri nañ de waaye xutba bu mel noonu mos daa qaala alxaaris ibnu hammaam xam nga nit ku nekk la mbëgg ca lañ koy naax te xam na ne adab suma nattu xaar ne ne xas daa di mu hoyo falee ma bi wattul xutba ti ci melaw xutba al madluwati ba de bu ñu jàng doonal xitbati walis labat al majluwati ba de bu ñu feeñal mu ne xam naa affaire yi ngoro sax mu geewa waaye man sama bopp bi ne wuj tax na li wane wane ne yomb na man daal bëgg-bëgg amul ci man mm. waaye nag mu tudd xutba mm. te adab de suma na de suma na mm. xutba bi daal ci la ma yoofalee xataa xultu ba ko ma ko ah xad wakkaltu wakil naa ilayka jëm ci yow xaadal xat ba mbambare mi mbir mi ma ko ak mbir mi kat te naa ko ci sol fa dabiru nan ko settantal tadbira man setantala koo xam ne tabba garbal na mu liman ñaal ka nga xam ne habba sopp na sopp ah kon nga xam ne sa soppe hmm. ah moo la baxee mbiram rek nga hmm. eh, taxawu hmm. ko comme kuy taxawu soppeem loolu la ko fa naxada mu buur mu har wilan daa ji ñàkk mu ne lu tax bëggoon a dégg ci saa mu ñukk dem dem summa haada topp mu delsi haat mutahallilan daa ji tàllal xarka summa ndax loolu mutahallilan daa ji tàllal xarka nam surtout di mu dikki hmm. firee ko lool ame meloo kontaan lool wa qaala ne ma absir bégéexal bi ataabi dëri ci gërëm loo ci ak jamono ci gërëm ak jamono yow su tumaraañ hmm. jeex na ci dëkk bi hmm. sa coono jeex na ci dëkk bi kontaanal waxtu laa bi dërri mm. ak rattu soo mu bëri mm. salal xewal dana la mm. wullitu méngaleem na ma alxaq dafa sëy bi wa uk te toggeef na ma da teewal can gi wakka an xatte daanaka teew na ba pare dañ wax ne yëf yaa ngi sa loxo yaa de maye la laaj yow lañ caa léegi noonu la ñoo laaj toppatoo naa ko ba daanaka sotti na mm. te maa di jàpp bis may maye mm. kon ki xam nga ñëwar ba pare mm. su ma axada topp mu xaram fii mu waaxadati ahlil qaadi ci galanteeg ñooy ba mu commencé yëgle sa yëg na nag bis sàngam heure sàngam fii dañ fi maye sëy sama gan gi dañ ko fay may soxna dama koy may soxna waaw ah, bis sàngam heure sàngam wéy daal alwaye xiwaar ak xalu xalu aji neexi xiwaar xiwaar mooy taabal yooyu nga xam ne dañ cee teg ay naan dañ ci ay lekk taabali lekkukaay yooyu mooy xiwaar mu ngi préparé kay yi ñuy neexale takk gi ci diggante ay naan ak i lekk ngoon la wax falamma madda ba tàllalee allaylu guddi gi atana boo ay buumam mm-hmm. waaxlaqa te tëj kullu si baabin bépp borom buntu baaboo buntam mm-hmm. bañ toogee ba guddi gi lëndëm mm-hmm. lu bari ci nit ñi jàpp roq azana la woote fil jamaati ci mbooloo ne ala ne uxduroo teew leen fi hadihi saa ci yi booba la ne ñëw leen heure bi la hmm. ndax guddi moo gën a nekk waxtu boole hmm. falam yabqa desul fihim ci mbooloo mi hmm. illa man dare ku xam ne labba xëyu na sawtahu baatam wa xadara te mu teewal baytahu néegam te mu teew baytahu ci néegam waawatal bi yëppin képp ku ñëw xëy si nga nga ci néegam fala mastaku ba ñu sàppee la day hi fa moom bañ dayee ba toog tooginu kuy préparé pour maye jabar wajtamaha te dajee asaahidu aji seede ji mooy mbooloo mii fekkee wal masuud ak kañoo seede alayhi waral ko ak jëkkër ki ñuy may ak kilifa yi maye bi loolu xamee jaala xarab na yar ko di yëkkati al usturlaabu usturu laab usturu mm. laab benn jumtukaay la mm. boo xam ne dañ ci xamee mm. tàngooru jant bi fu mu toll ci ban daraja la toll baat bi du baatu arab na mu commencé di yëkkati affaire bi mel dafa am lu bëgg rek ci mbir waxtu bi wayal xadu muy rob a tax wiima taqwiim téere lay do bu xam ne dañ ciy dëgg de xisaabee ci hen mul falak bi am yuñ cay génne waya dam woo mu bàyyi ko bi dajee xeedaal léeg-léeg mu yëkkati ustulloo bi léeg-léeg mu ustullaa bi léeg-léeg mu rokkee taqwiim bi xëy na dafa bëgg a def ci nit dafa am waxtu bu xam ne daal moom la gën a tàmm ci lii ilaa naasa bëgg a mentu al xawma nit ñi téye ba nit ñi ba nit ñi di nelaw mm. waxasiye te dikk annaw mu nelaw bi mm. loolu amee xultu wax naa la woo ñaal ko ma ne ko yaa haasa eyew dam mm. tegal alfa sa semmiñ mi sira si bopp waxale te nga noppal te nga musal annaasa nit ñi meneen noxaati ci gëmmentu ma ne waa ji tojal bopp bi. lii xam-xam nit ñi dañu bëgg a nelaw. fa nadara mu xool nabratan ak a xool lu jëm ci biti bi. ma ne nga xool ci biti bi. su ma tasaka ba am na foofu. loolu moom maa ngi ko doon wax. su ma tasaka topp mu roccee koona. min hoqalatil wujoo ci héeg ak maanaam ci xeew ak wedem ci xeew ak wedem mu mel ni kuy xeewoon xeewi ko nag man tasata topp mu reccee ko muy feccee xeewee ko min hoqalatil wujoom tukkee ci xeew ak wedem ñàkk mën a wax waa qasama mu giñ bi mu giñ ci tóor xaj na dojoo sama borom doon deyaale yonent yàlla Muusa wala dojom xolloo woon Muusa alayhi salaam mooy tóor wal kitaab ak téere almastur bare bu ñu bind man naa allahul mahfud la mu ne mu ngi giñ ci yéene layan kasi fan na dana wuññeeku sirru hadal amri mbootam milimbir almastur ma de mu ñu wala yantasiran na te dana tasaaroo mm. sigruhoo turam mm. ila yawmi nusur ba ci bisab ba mm. mu ne bu soobee yàlla li ñoo lëmas dana génn ne dàng de te lu mu te itam kenn du ko fàtte di ba kera bis bi la yen kasi fan na dana wuññi sir dana wuññeeku sirru haadal amri mbootam mili mbir almastuur ma de mu ñu wala yantasiranna te dana tasaaroo mm. sikruhu turam mm. ila yawmi nusuur ba ci bisab dekki bi mm. xam nga xutbatu nikah yi dañuy toog mu ne summa innahoo topp moom jasa sukk na ala rubbatihi ci bët hoomam mu gappare ko nag wastarha mu sàmmuloo alasmaa nopp yi li xutbatihi ngir xutbaam mu ne kon bismillah nañ déglu xutba xutba bu rafet la mm. bu xam ne xamul benn tomb na wa qaal mu ne mm. alhamdulillahi almaliki almahmud ba mu xàgg mm. alhamdu mboolem lillah aji saxla ñaa sama borom almaliki kade buur almahmud kade ku ñu sant cant dëgg-dëgg yàlla mooy ki ko xeyoo moom mi nga xam ne buur la bu ñëppay sant almaliki kadaaji moom mm. moom moom lu ne mm. alwadud mm. xëy na mooy kay jëf lu ñu koy soppee yaa ngi dégg nga wala kay kay def lu ñu koy soppee mën naa am loolu la dégg sopp jaamam ñu baax ñi la waaw hmm. ah, ki sopp jaamam ñu la hmm. mais loolu lay firi musawwiri kulli mawludin hmm. kadaaji melal képp ku ñu jur muy koo xam ne nit koo gis wala mbindeef moo na melee moo ko bindee cëruhu mu wa maali kulli mafrodin te delluwaayu képp ku ñu dàq képp koo xam ne am na lu tax dalu da toog xamul fenn fu muy def muy làqu gaayam furul ci borom bi tabaraka wa taala ak la ko tee toog lu mu mën a doon rek fatihil mihaad kadaa ji tàllal lal bi te muy suusi jaala lakum larda mihaadan moo ko tàllal fatihil mihaad kadaa lal bi mooy suusi mu wattidil mu wattidil adwaar te daa ji doj yi mm. moo samp doj yi ñi dëgër mm. wa murtilil amtaar moo daa ji hebal taw yi mm. mooy kii wàcce taw yi wa musahilil awtaar moo daa ji yombal haajo yi mooy ki nga xam ne mooy faj haajo yi ci yomb yomb alimil asrar ka daa ji xam mbóodi wa mudrikiha te daa ji mooy ki nga xam ne xam na lépp mbóot ah li xol yi nëbb sax xam na ko amul dara lu lu ko humpu wa mu dammiril amlaak ka daaji halak buuri wa mu holikihaa te daaji halak seen mooy ki halak buur yu bëri yu xam ne nguur da leen jeyoon ñu fee tërlu wa kam qasamna min qaryatin kaanat zalimatan wa amsarna ba'daha qawman akharin jàng nañu ko ci alquran dégg wa kam qasamna min qaryatin kaanat zalimatan wa amsakna ba'daha qawman akharin wa mudammiri amlaak te daaji halak buur yi wa muhlikiha te daaji halak seen wa mukawwiri duhu te daaji muur jamono yi wa mukarririha te daaji baamu jamono yi yukawwiru layla ala nahaari wa yukawwiru nahaara ala layli jàng nañ ko ci alquran wa muridil umuur te daaji rootal mbir wa musiriha te daa gongil mbir yi mm. sotti mbir xàgg mm. mbir mm. yëpp méngoo ci lay xamee amma matale na samaaw huwa tabeem wa kamala te mu mat ñëpp la baaxee te mbaax gi itam dafa mat waxatala sotteeku na sotti na rukaamu huwa niiram waxamala te mu yol mayam itam fu ne la xàgg te bari lool wattaawaha topp na mooy joxe na mm. nangu na mm. asuula dagaan mm. wal amala ak yaakaar mooy kii nangu ñaan yi di defal borom bëgg-bëgg seeni bëgg-bëgg wattaawaha topp na yàlla du topp kenn waaye nangu na lañ ci jublu rek asuula dagaan wal amala ak may ak méba waaw san xoomalal na al murmila ku fëggu mooy ku xamu dara wal armal ak ku ñàkk ahmaduhoo maa ngi koy sant hamdan cant mam doodan gërë guñu tàllal madaahu lefam maa koy sant cant gu yaato yaatu wa uwahiduhu maa ngi fas wéedam kama wahadahoo ni fase wéedam al awwah mën naa suñ ba ibrahim la ci jublu inna ibrahima la halimun awwah la awwahun halimun munib wala awwaa ku ragal yàlla rek mm. la ci jublu woomu allah mm. laa ilaha déet buur boo xewe jaamu lil mm. umami dañu xaal xeet yi si waawu ndare moom moom rek mooy ko xeewoo ñii ko jaamu soo koy jaamu yaa ngi ci dëgg soo ko jaamu wul yaa ngi ci neen jaamu gi mën na indi njëriñ ñàkk ñàkk gi jaamu mën na indi lor loolu kenn duu ko kudul yàlla ilaahu mooy maabuud bil haqi kenn du ko kudul yàlla wala saadian dit aji toj lima li nga xam ne abdalahu hemale na ko mooy jagal na ko wa sawaahu te mu hemale ko lum deferit nag kenn munu ko yàq arsala yónni na moom borom bi muhammadan muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaman muy alam li lislaami ñaal lislaam mu ne kaalam ci tarixul huda fii nga xam ne ñu ngi ko roy ci jikko di ko roy ci jëf di ko roy ci pas-pas duñu mos a sànku benn yoon te di njiit lil hukkaami ñaal way xatte yi mu doon koo xam ne mooy njiital kilifa yépp kilifa gu doon su tëralee kilif téefam kam na yonent bi tëralee kilif teefam hmm. dana jëriñ ñam xilif bu baax a baax a baax dana leen jëriñ bu baax hmm. wa musaddidan te daa ji jubbanti hmm. li raxaaye ñaal way suufe yi mooy ki fekk ay nit ñoo xam ne duñ nit yi dara ay pas yu doy waar lañ am ay jëf yu doy waar ci lañu nekk nde sukkandeku guñ sukkandeku ci aada moo leen niteel yóbbu leen ci pas-pas yu hiwe mm. yóbbu leen ci ay jëf yu hiwe mm. ak wax yu hiwe mooy ki def loolu mm. ndax xam nañ bi muy ñëw ah, ne àddina bi soxla ku ni moom wa musaddidan te daa ji jubbanti li raay ñaal way suufe yi wa muattilan te daa ji yuqal ahkaama waddin hattey wëdd wa suwaaxen ak suwaa moo fi jëlee jaamu wëdd moo fi jëlee jaamu suwa juróomi xerem la wëdd suwa yaxoos yaxoox nasr wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna wuddan wala suwaahan wala yaxuusa wa yaxooqa wa nasra xam nga juróom yooyu de la dañoo wax ne ay nit ñu baaxoon a baax seen jamono xamal mm-hmm. njëriñ ñuy dund mm-hmm. liggéey bi liggéey yu rëy mm-hmm. ñu demee ba génn àddina bàyyi bi tur wu rafet seytaane def ci xel yi génn nitaali ñooñu nag di ko fàttale ko ñu defar seeni nitaal na dañ koy fàttale ko loolu moo dem a dem mm-hmm. ba àggale nit ñi mm-hmm. ci jaamu nitaadi ñooñu dama dem bu yónni yonent mm-hmm. pour xaye loolu jot yonent ba dikk wax ñu weddi ko ba dañoo mujj ñoo ña doon dem loola dañ leen xalak sel mu baax ay nit lañ woon ñu ne ñoo xam ne dañ fi nekke woon da jaamu yàlla nekk ñu baax a baax amal njëriñ ñin jamono anteel génn àddina bàyyi fi tur yu rafet a rafet seytaane nag moo def ci xel yi ne nañ génn nitaali ñooñu ndég ñi di leen ko fàttale ko su ko defee ñi defar nitaali ñooñu wax ne ñoom lañ koy fàttale ko fonk nitaali ya mm. ba mu àgg ci jàmmu leen xam na yàlla buñ xàgg fa ñële xàggoon waaye foofu la ñu xawale de gis nga ko bu baax foofu la ñu xawale de waaye yàlla buñ xàgg nag fa ñële xàggoon waaye foofu la ñu xawale de gis nga ko yow da ngaa jël photo ak nit nga taf ko ci sa oto nga foog ne bi mooy ta oto bi du accident nga foog ne photo bi mooy ta oto bi duñ la jàpp amul loolu mooy yëfi jaaxal seetlu nga bu baax a baax wala nga jël photo ak nit nga taf ko ci sa buntu nga foog ne photo bi mooy tax nga jarle léegi nag yaa ngi ci ker gi waaye photo baa ngi ci naaj bi te loolu la ko xam nga loolu mooy faral dafay am ak yu mel noonu ak yu mel noonu ak yu mel noonu moo tax daal mbiri suwar yi daal xaajoo na seetaan xaajoo na seetaan xaajoo na seetaan dégg nga man affaire yi photo yi lu mu yomb a tayal la lu mu yomb a tayal la sawaruma ci dara dara dara affaire photo yi man sawaruma ci dara dara dara dara sawaruma <laughs> ci dara dara dara dégg nga baax sawar muñ dara sawar muñ dara a baax su eboo tooxi wax li mu wax sax ne almaru dayfun fil xayaati wa innani dayfun kadalika tanqadil amaru mu ne dundu àddina ngan la ba ci man mii de wax yow ak gan laa fi rek bu ngan gi jeexee damay dem loola tax nga di fi nit ba ca kanam doo ko gisat almaru dayfun fi lxayaati wa innani dayfun kadalika tanqadi l amaaru fa ida aqamtu fa inna saxsi baynakum su ma fi nekkee ngeen dama gis maay ki ngeen a gis wa ida raxaltu fa suurati taskaaru su ma fi bàyyee koo nag foto bi mooy souvenir bi moom ngeen may fàttale ko waaye benn dessin ci këyit hmm. ku xam loolu rek mooy tax ñu xam la am hmm. benn njëriñ <laughs> te loolu loolu rek mooy tax ñu xam la am hmm. benn njëriñ te loolu bu baax am benn a baax seetlu dee foofu la wëdd ak suwa ak yaxu ak yaxu ak nasr cosaan wax nañ ko de xam mun ci téere yi léegi nag ñooñu fañ xawoon mm-hmm. ñun de foofu lañ xaw mm-hmm. waaye fañ xàggoon nag mm-hmm. yàlla buñ fa mos a àgg moom ah bala ñu fay àgg daal yal na yàlla baaxee ñu am jagalkat boo xam ne danañu tourné ba duñ fa àgg rek ah naa la demee dégg nga gis nga waaye affaire yi photo yi kooku du dara du dara du dara du dara du dara gis bu baax a baax alama xamle na moom yonent bi walla màndargaal na wàllama te mu xamle lu nekk wane ne màndargaam lu nekk xamle na na mooy demee génnee nit ñi ci réer yóbbu leen ci njub xam nga ne koo xam ne topp rek rek la nga niteel ko mm. ba mu mën de ko doxal mm. la rafet yëpp rafet li war rafet yëpp rafet mm. loolu kenn defu ko kudul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nag def na ko nag wa allamat ummatan bil qafri nazilatan rayal qayasiri baada saai wan naami te nu baax a wa jàng na jul burda danga ko gis sawqi wa allamat ummatan bil qabri nazilatan rayal xayasiri ba'da sa'i wan naami mooy koo fekk mbooloo mu xam ne ci xàll kese xàll xàll xàll lañ wàcc xamuñ lu mooy sàmm gàtt ak sàmm gëléem mu jàngal leen jàngal leen jàngal leen bañ mën a xame nguur goo ne mooy gën a rëy nguur ak tey sarga mm. da ko doxal de rafet mm. deret yi jot seen xaq der yi jot seen xaq xalal jot seen xaq xel yi jot seen xaq askan jot seen xaq seen xaq seetlu nga baax a baax moom rek moo jàngalee noonu moo lama waxakama xatte na hit nag xatte na ci mandu bu baax baax waxakama te mu rafetal xatte bu baax itam waa sala cosaanal na mu al usul ay cosaan hmm. yi nit war a jaar hmm. mën a am jubóog yàlla hmm. yëpp xàll na leen bu baax a baax loolu moo tax nit fan lay xaw mën a am ngërëmal yàlla kooku du muskilaam lii muskilaam mooy dana xaw fi ñu ko xawlu am déet rek waaye fi ñu xawlu moom leer na waaw le moom xam lem lépp lépp leer na dara dara dara desu waaye nag kiñ xamal nag te wax ko ba mu leer ndax dana faale liñ ko xamal wala du ko faale foofu la mbir yi nekk waaw foofu la mbir yi nekk waaye ñun ñëpp bokk nañ xam ne duñ fi def loolu ñun ñëpp bokk nañ ko xam waaye ndax nag ñu ngi ba ñu ngi wattandeku suñu àddina yàq suñu àllaaxira waaw ñun ñëpp bokk nañ xam ne mënuñoo doylu walis borom bi waaye ndax nag ñu ngi bo ñu ngi xenoo ji moom noonam de waaw ah, ñun ñëpp bokk nañ xam ne mbugalam safara baaxu ci ñun waaye ndax nag noonu lañ koy dawee xam de waaw ah, ñun ñëpp bokk nañ xam ne xéwal ak àjjana ci la suñ tirangay ëllëg nekk ndax lañ koy dawee xam de kuy laaj loolu ngay laaj waaye kii leeral moom amul lenn lu mu bay ah. kii laaj moom ci ñoo leeralal foofu la laaj bi nekk waaye kii leeral moom bàyyiwul dara lépp leer gis nga bu baax a baax annaasu qad alimu an la baqaa lahum hmm. nit ñi xam nañ xam bu leer hmm. ci lépp lu ñu war a xam wan nañ leen ko hmm. law annahum ma alimu xellante woon ni ñu xamee ñu am ñor gu toll ne dafi noonu kon doon na baax xellante woon ni ñu xamee ñu am ñor gu noonu di jëfee noonu xel bu baax a baax qad alimu an la baqaa lahum law annahum hamilu miqdara ma alimu wax dëgg hatta na waa kama te mu hatta bu waa sola cosaanal na mu al usoola cosaani bu mu hada te mu lala leen waa kada feddali na al wuhooda dëhëli mooy yaakaar yaakaar looy ci jëf baax waaw maa de te mu tëkku te itam ragal loo na nit ñi lu bon waa sala yal nay jokkale allahu yàlla lawa ñaar aligrama teral yal na yàlla saxalal ko teraanga waaw dana te yal na dénk roxawo roxam daaru salaam te itam yal na yàlla dénk roxam daaru salaam wa rahima te yal na yërëm alahu ñoñam wa alahu ak ñoñam alkiram ñu da way tedd yal na yàlla yërëm ñoñam maa tuuti moo maa lama fig mel xat aalun junux hmm. fekk junux a ngi melxat hmm. wamalan ak fekk daw na hmm. raalun doomi baax watalan ak fekk fenk na hilaalun terute wasume ak fekk dégges na hilaalun baatal selo nga ni mu déggee arab selo bari niñ jege ante te bokkuñ ni mu déggee arab waaw dégg dégg arab la mu ne billahi wa ayatihi wa masaril hajji أن الحريري حرى بأن نكتب بالتبر مقاماته mooy téere bu jomb daa ñi war di ko bindi wurus dafa yaakaar ne loolu la soxla woon liggéey bi tuuti mu ëpp daa ah an al bi an naktuba bi tibri maqamatihi mojisatun tojisu kullal wara walaw saraw fi dawi miskatihi moo tax ne maa la mel xam aalun njuuma hmm. wa malaha ak fekk daw na hmm. lamaha ak malaha jege ante nañ waaye bokkuñ de raalun doomi ba hmm. watala ak fenk na hilaalun terute wasume ak fekk déggeef na hilaalun batal dem tuuti rek yaamaloo jëf leen raakum yal na sàmm leen allahu yàlla aslal amal gën jaay hiwi jëf di leen jëf lu baax loolu la yàlla santaane de inna allaha amara bima amara bihi almursalina yàlla lim sant yonent yi loolu la sant yonent nit ñi de selum waaba yonent lim leen mu yaa ayyuha kulu min at-tayyibati wa amalu salihan li mu wax nit ñi mooy yaa ayyuhan naas kulu min tayyibaati maa razaqnaakum waskuru lillah lo in kuntum iyaahu ta'buduun ngeen sant yonent yi de la sant nit ñi da ba ngeen def lu baax waslu ko te na ngeen masalikal halal sóobu waayu lu dagan lu lew te it ngeen di lu lew ngeen ko lekk moo leen di dëhëral ci lu baax ba ngeen mën a am dundu gu am bénéfice maanaam àllaaxira ju neex nit bu lekkee lu ko lew balaa jeex ci fokk si dana ca def lu lu baax su ko neexee ak bu ko neexut yépp a ci yem wattarihoo na ngeen di sànni alxarama lu xaraam wa dama wu te ngeen bako te ngeen bàyyi dafa yàq seen nekk ab àddina rek hmm. te itam bu day yàqaale seen àllaaxira hmm. nit bu lekkee lu haram hmm. balaa jeex ci moom fokk si dana ci mooy yàlla su ko neexee ak bu ko neexul loolu la wax mu ngi ci téere yi te neex nay dégg ndax xayru xayru la déggoot sërru sërru la déggoot lekk gi ngay lekk moo lay dëhëral ba nga di yëngatu ci li nga yëngatu lekk gi nag su xawee yoon mm-hmm. dafa déggoog lu yoon mm-hmm. dëgëral la ci lu baax mm-hmm. su yoon lu xawut yoon lay déggut dëgëral la ci lu dul noonu rek noonu lay demee mana da ngeen koy bàyyi ndax da rek was ma woote na ngeen a dégg amrallahi ndigalal yàlla wama wute ngeen mokkal ko li yàlla santaane da ngeen koy wut a xam bu baax su ngeen ko xamee ngeen de ko wasiloo te na ngeen di jokk mm. alaxaama bokk yi mm. waraama te ngeen di ko sàmm mm. te it na ngeen di jokk bokk de ko sàmm bokk sama borom moo ko jokkulu mu ngi ko xaralee tur ci turam borom bi rahman la tudd boo dindee lii foog nuun ci rahman li def rahim moo de bokk te xam nga dañoo doyloo xaraf yi cosaan rek hmm. dindi xaraf yi ndollal yi ndax rahman sans laan la alif bi nun gi bokkuñ ci cosaan yi baat bi hmm. te loolu ko hmm. la ko xaralee tur ne am ama sardayna an asila man wasalaki waax saxa man xataaki xanaa su ma la séddee ne ku la jokk ma yokk ko ku la dagg ma <laughs> bindee xaral ko moom dana la neex ama tardayna an asila man wasalaki mm-hmm. waa qataa man qataaki mm-hmm. waxaasoo na ngeen di moy mm-hmm. al ahwaa bànneexi bakkan war damawa te ngeen da leen jàjji da leen hawa nafsi hawa jëmmale wut kenn fenn fu toroxaande rek wala tattabi' al-hawa fa yudillaka an sabilillah hawa boo ko toppee dana la teggi ci yoonu njub te inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun sadid te nag ku teggee ko ci yoonu njub yoonu halako ci lay xaw wala tattabi' al-hawa fa yudillaka an an sabilillah daf lay réeral te nag inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun sadid amul tuuti rek moo ci des dégg di goroo anteet luhuma salaahi yàppi héwén wal waraay ak ragal yàlla di leen ko seq ak koo hiwe ndax lu ñu war a àndee ci jaamu yàlla la yëfi dëgg la comme yëfi hiwe la nag da nga ko seq ak koo hiwe te bokkut ak jabar bokkut ak jabar bokkut ak jabar bokkuñ de ah, bokkuñu de bokkuñu de sello mu ne bokkuñu de sello bu baax a baax wasahiro na ngeen di goro anteer luhuma salaahi yàppi xéwén wal warañ ak ragal yàlla diggaale de leen ko def ak koo ndax ànd ci yàlla la mm. yëfi dëgg la subaana boo ko bëgg a seq ak nitu caaxaan mm. mën na indi coono mm. wala lañ ca bëggoon du caamati wasaari mo na ngeen di dagg raxatal lawi gañoog po watamay ak xemem waaye fo rek ak bëgg àddina ak di dugal ci diggaale ndax loolu jagalu dara te diggaale bi pour jagal la kon ñu jàng loolu ba beneen yoon incha allah ah, ah waaw ñu waajal waxtere ci xutba bi mu ne wa mu fayirukum ki goranteeg yéen tey de kii ngeen bëgg a diggaale atharul araar moo gën a laaj ci gor yi mawridan ci judduwaay waafraahum moo ci gën a saxle suudadan ci jàng waax laahu moo ci gën a neexle mawridan mm. ci rotuwaay mm. waasahu moo ci gën a wérle mawhidan mm. ci da tey ki ngeen diggaale lépp lu ñoo sànnee nit dafa mat ci moom te law gor piir la te lon ko baax juddu ba parce que gor piir la ca jikko ja gor piir la itam ci kàddu lu mu leen wax rek dëgg la wa mutahirukum aji goraante yéen atarul ahrar moo gën a lab ci gor yi moo li dan ci judduwaay kenn du ko jamee askanam hmm. waasaraw moo ci gën a saxle hmm. su dadan ci càng hmm. kenn du ko jamee defin wu soob waax law moo ci gën a neex moo dan ci rott waaye ku neex a diggaaleel la waasawu moo ci gën a wérle moo may dan ci dal lu ci tegu waa am na kum jublu na leen te nag nit ñi moom ak nuñ mën a toll yàlla boole waxal la wàcc na mu haramakum seen hurum tey ci seen hëtt bi la wàcc mumlikan daa ji takk warasakum seen jongama ji al mukarrama jëri ju soxna sii ngeen ko mu war nekk soxnaam wa maahiran te daa ji can laa ñaal warasakum kama maharani gi caneewoon ar rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallama umma salamata ummu salama te itam dana ko joxe can gu mat sëkk muy juróomi ni yonent bi caneewoon soxnaam ummu salama te mooy mm. hind mm. soxnaam ummu salama dégg nga senen bu baax a baax mooy ki toppoon ci Zeynabu bintu Xusaymata dégg nga mm. Zeynabu bintu Xusaymata dégg nga yonent bi Aïsa Xadija la jëkk a denc Aïsatu moo ci topp léegi Sawda moo ci topp bintu Zamata Aysatu bintu Abi Bakrin Hafsatu bintu Umar ibn al-Khattab Zaynabu bintu Xuzaymata ak Hindi mi di Ummu Salamata ak Zaynabu bintu Jahsin dégg nga selu baaba ak Juwayriya ak Ramlatu bintu Abi Sufyan mm-hmm. ak Lam mm-hmm. Safiya mm-hmm. bintu Huyay ibn Axtaba ak Maymuna bintu Haris ñi ne aswaaju nabi fukk lañ ak ku mel ni ku mel ni bintu Xuwaylidin mm-hmm. dafa faatu njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. am na keneen ku faatu njëkk yonent bi. Mm-hmm. xëy na mooy beneen beneen bi waaye dama ko faatu. ak na keneen ku faatu sabat haqli xula zeyni haalatin saha jafnuha ramsan fahihan qad sabat xalili sabat haqli xula zeyni haalatin saha jafnuha ramsan fahihan qad sabat amul bindu kayit kayit gu baax kayit bi dafa tuuti ana seen kayit yi dëgër loolu nag nii la bàyyi mu fekkan léegi ngeen ngeen gis affaire bi ni mu génnee daal ma ne xalili yow sama xarit mm-hmm. sabat jàpp naa xali sama xel bu mm-hmm. ko téye xanaa xulaa zeyni xaalatin mm-hmm. taari takkaayi taari ko ñu naan xaala saha damu haa mbëtam bëtam ramsan ci junj saxiixan bu daa ji wér muhassaban bëre bu ñu sellal gis nga xaa mm-hmm. la lay junjal mm-hmm. mooy ki yonent bi njëkk a dem mm-hmm. gis nga siin bii Sawda bintu Samaata la lay junjal mooy ku ñaareel gis nga ayin bii Aysa bintu Abi Bakr la lay junjal mooy ku ñetteel gis nga Xabsatu bintu Umar ibn al lay junjal gis nga siin bii Zaynab mm. mm. bintu Xusaymata mm. ki góor gi tudde woon na ko doom mu yaay Umar Xusay yaay Umar Xusay ñoom ñaar jigéen ñoo sey Xusay ñoo Xusay Zaynab bintu Xusaymata loolu gis nga ko gis nga ko baax a baax dégg nga juwayriya moom la jaar moom la moom la jiim bi de jun juwayriya Ramlatu bintu Abi Sufyan moom la miim bi de jun Safiya bintu Huyay moom la saat bi de jun Maymuna bintu Haris mooy axiru man naka annabiyu ni lay tegalee rek ni ñu tegalee ni ci wéy bi ni lay tegalee ci dëkk bi noor téere lañ tegal <laughs> noonu rek lañ tegalee dégg nga noonu lañ tegalee ki njëkk ci loxoom mooy ki ngay njëkk gis ci turam mm. ki ngay njëkk mm. ki ci topp moo ci topp ki ci topp moo ci topp rek mm. bu ko defee njëlbeeni baa di ay rumuus ci turi azwaajin nabi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ko bu baax a baax booy alaji malik nii la ko tegalee waaw kum ci mën a doon jàngale na dara ci tarjamaam waaye dafa jekkee ci bu jàkk ki bi mu paree teg ci kim cee teg teg kim cee teg pare wala nga am waaye bu la duniya da nga jàngale moom itam dégg nga par kenn par mm. kenn gis nga bu mm. mm. kama mahara ki canee a rasul bi ummu salamata wa ummu sahirukum akramu sihirin mooy gën ci ay goro uudi a bu dénkeef na ko ala walaada ay doom salaw kuy bëgg xam ci juhum mm-hmm. kii yaa ko gan wa mullikate moom loo ko mm-hmm. maa nga xam ne araada na mu namu ko mm-hmm. ko yaakaar yow ci may ko soxna kii gënul kii maa saxaa juumul de moom ko ku ko may jaba wala wahima te def le woo du juumu de wala wukki sa wàññeeful mu lahima woo ku jaxasoog moom wala wusima te ayibale su ko de jaxasoog moom xiw xiw la de asalu maa ngi ñaan allah yàlla lakum ñaan leen mm-hmm. ihmaada bi saalihi sant jokkoo am mm-hmm. kon maa ngi ñaan jëflante bi mm-hmm. na jur na jur na jur na jur na jur cant wa dawab isaadi yi ak sax ak texeelam mu saxalal leen texe waalama te yàlla ne yenkabal moom yàlla ku lan ci ñun ak yéen islaaha haalihi xew nan mbiram wala daada aqadu li maadi yi ci delluwaayam wala woo ñaal na alhamdu cant hmm. assalmadu guraaji sax hmm. wal madu tagg hmm. li rasulihi ñaal na yonentam muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii mooy xutba bi amul benn tom falamma faraxa ba mu sottalee nag mu waa bu saydin min xutbatihi ci xutbaam al badiati nidaam bu daa ji héeme ci noote bi mu paree ci xutbaam bu héeme bi al ariyati bu daa ji rafle min al ijaami ci tomb xam ne duñ gis benn tomb xaqada mm. fas na mm. al xaqada fas fas ba xalal mm. xamsin mi iina ci juróomi téeméer da wax ne kon kat sëy bi dogal nañ ko can gi juróomi téeméer wa mu wax lii ñaxal ma ne bir rifaa wal baniin baat la bu arab de ndokkeele ku takk jabar mm. ndokkeel ak waxi arab la mm. waaye du ndokkeel ak diina nag mm. bir defa yi ci dëppoo mooy da nekk sutura mu nekk sutura mais da nga daax mu daax la wal ba nii na ak la wax su mu topp mu teewal ak xalwaa xalwaa allati li nga xam ne kaana nekkoon na mu allati xalwaa bi nga xam ne kaana nekkoon na mu ahdaa di ko xaru bi mu takkee baagal mhm. ah yi nga ne moom la pareeloon pour takk gi mhm. ah mu ne lu xam ne dañ koy jëriñoo ci fi ñu doon mhm. mu génne ko waa daa te mu peeñal al abida ta aji jommale ja mooy mbir muy nga xam ne kenn du ko fàtte ni ndég na mu garawee xen daxaa boppam léegi fa la def lu kenn du ko fàtte tellu ngu baax a baax waab te mu peeñal al la kenn du fàtte di xen daxaa boppam génne halwa yi mm-hmm. fa aqbaltu ma jublu iqbal al jamaati jublu mbooloo mi mm-hmm. alayha ci halwa bi mm-hmm. bi nga bismillah nit ñi ñëw ah kenn laa ci nit ñi mayit may da wakittu jege woon naa aw wii di daanu bi yeddi ci halwa bi xaw naa xayoo fa fajarani mu jàjji ma xanil mu walit bokk ak nit waan hadani mu guurloo ma lil munawalati jëm ci jottali hmm. mu ne ma borom yëf yi hmm. doo topp rosey gan bay lekk ndax nga nar nekk di buuxanteeg ñoom loolu yow borom yëf gan ñi say gan lañ hmm. topp doo leen lekk waay noonu la wallahi giñ naa ci yàlla maa kaana nekkul bi asraa di gën a gaaw min tasafuy min tasafuy alifaan ci dajeeg ay matiba xatta mm-hmm. xarran dara daanu na al al aqwamu ñi mm-hmm. def xaani ci seeni saqanu seeni nga mm-hmm. mu ne kem du gën a yàgg di xafa xippi daal laa gis nit ñi commencé sëpp jale kenn ku ne dérul boppam ci suuf rek waaw ndege musiba la lay jox wallahi dina ci yàlla maa kaana nekkul bi asan di gën a gaaw min tasaabuil ajfaan ci dajeeg ay mbati ba xataa mm-hmm. xarran dara daanu na alqawmu nit ñi mm-hmm. la lil asqaani ci seen i sëqnu mm-hmm. kenn xafa xippi daal laa toog rek ma gis yi commencé di sëpp jëlañ jëru seen bopp yi ci suuf falam ay tuum ba ma leen gisee kaajaasi naxli ñi mel ni ay hëkki tàndarma xaawiyati ñu di way daanu ku daanu rek nemele xama dañoo dee xama dañoo ba ma leen gisee mm. ñu mel ni ñu dee walla ñu màndi mm. aw ka saran binti xabiyatin mm. wala ñu mel ni ñu ñu nërmali doomi dam sante mooy sàngara moom daal ku moos rek ruus sa bopp ne meles rek bi ma gisee ñëpp ne meles nag alimtu booba laa xam ne innaha naka defin bi la i dal ko bëri kenn la ci yu màgg yi wala xam ne dafa dina loo rëy de bu umul bari te mooy ndeyi xelaat yi dafa dina danse de hmm. ko xultu mane ko mu wax la wa ñaal ko mani ko hmm. yaa ma day ya yow si bakkanam hmm. wama si kopparam yow daal foog nga ne lu la rek nga def foog nga ne noo xamee rek baax na yow laa wa ahdatta nga lil xawmi ñaal nit ñi xalwaa lu neex am balwaa wala musiba yow ñami njëkk ñami xew nga indi mm-hmm. wala luy alak nit ñi nga indi mm-hmm. ah ah dat sa mm-hmm. moom la woon hamsatu bi dañ ko xasab wa rubbama usqitatil hamsatu in kaana xasal maana bi asfiha umin ibnu malik mu ne am dana doon xaraf waati ci gannaaw hamsatu listifam buy barab boo xam ne boo rotalee hamsa bi bu te wax bi leer man nga rotal hamsa bi moo nekk ni ah dakka ndax xadul nga mm. lil qawmi ñaar ah, nit mm. mm. wala musiba tuuti ma dafa xaala mu ne ma ah dudu garaw dama leen di nelaw raw rek yow rek mu jeex ah, lam aadu jéggiwuma nag xabiisal ban ji xabiis buñ lëggee ci ban ji ay jumtukaayam la fi sihaafil xalam ji ci ay bagaani xalam yi mm. waaye li wax rek mooy kama leen dorogé dañuy nelaw rek mm. waaye bu ñu yeewoo mu jeex mm. baa ñoo yeewoo nag naa def li mu bëgg rek waaw dafa war ñu waajal gaa yi ñëpp dal di naan ne xëla sàggoog sago ma ne ko yow li nga def loo yow musiba nga indi nit ñi wala sunu ah, garaaw dafa leen di nelawaloo rek xaay ne fa xultu ma ne ko fukk si mu maa ngi giñ bi man ci buur bi nga xam ne ab naa fenkal na biddiw yi suurat ñu de woy rafet wa waxaadaa te mu jubalee bihaa ci biddiw yi asarina wéere ñaani turan lu muy ne mboole laqad yita wallahi dikkal nga say àllaf nukran la da lu ñu sib lu may giñ ci ne yow lu bon nga def uqsimu maa ngi bi man ci buur bi nga xam ne adlaa fenkal na biddiw yi suuran ñu de way rafet waada te mu jubalee bihaa ci biddiw asari ne way ne ñaani turan bi muñ ne mboole ndax ku xam guddi dafay gindee ko ci bidiw ku xam bidiw dafay gindee ko ci bidiw giñ naa ci yàlla ne laqad jita wallahi dikkal nga say an dara nukran la de lu ñu si yow def nga lu waa waa xeeta te desal nga lakka ñi hàlla sigran tur fil muxsiyaati ci toroxal ni te itam sa tur ñaaw na ba faw waaw fuñ tudd def ka lu bon donte dee dee donte dee nga dañ la jënd waaw xayta desal nga lakka ñaar la sigran tur fil muxtiyaati ci toroxal bi yow fàttaliku bu ñaaw topp na la te du ba mu ah demal bari naa maalis maa wu jóg dem na dama ko yónnee adoon pharmacie su ma hiir xaalis ne bi ma gisee lii hmm. man dama waaru ndax loo xam ne foogu la wax ne xel dañ na hmm. su ko hmm. fokk si rek nga ma gërëm torop fi karatam ngir fi sayur amrihi ci mujjeg mbiram lii daal la jaay juddoo ëllëg daal man xamul kenn way jaaxal waxiifatan ak ragal min hada waa arrihi ci lam ci ci wàlleeg ram moom mm-hmm. ak ku jaxasoog moom ëllëg mm-hmm. la mu yàq ci sa biir mm-hmm. waxiifatan ak ragal minaat waa xar ci wàlleeg ram moom xataa taarat ba nafsi sama bakkan saxaaxan ngir tiit wuree da te loxalees faraisi samay daatu yu xol mm. irtiaadam ngir tiit mm. mu nekk loo xam ne tiit naa ji mm. ba ku ma man ci dëgg laa def jaxasoo naa ànd ma sama dal hatta saarat ba naaw nafsi sama bakkan sama an ngir tiit tiit naa ba tuddi kon ma tàggu sama sago wóor ne def te loxalees faraisi samay daatu yu xol falam maara a ba mu gisee nag moom abu zaydin istitarata faraqi yi jéggi dayoog sama ragal fariqa yabrëk bokku ba mu gisee ni ma ragale wastitatata falam maara a ba mu gisee istitarata faraqi yi tatak tatak sama ragal wastitata wastitatata xalaqi yi ak jéggi dayoog sama njàqare mm. du ne ba seetlu ne man mi nag jaxasoo naa dëgg rek li ma jaxase moo ko def hmm. waaye yëgalu ko yaram hmm. wala maara ba mu gisee istitarata faraqi ta tak sama ragal hmm. wa tisatata xalaqi ak jéggi dayal sama njàqare qaala wax na ne dafa ma ana lan haadal fikru mooy bële xelaat bële bële xalaat almurmit bu daa ji lakk warawu ak tiit almomit bu daa ji melkat yow lu la sa sago ba nga jaxasoo nii mm. maa analan haadal fikru mooy bi leen mm. al murmit bu daa ji lakk mm. waramoo ak tiit al murmit bu daa ji melxat fa bu nekkee fikroo ka sa sa fi ajli ci sama mbir min ajli de ngir man faana man alaana léegi artan danaa sàmm waat pir te ma tëb woo xubi ma wéetal haadi buqaata bi le pakk min nii ci man woo ko te mu wéetal ko wakkam misli ha te bëri na kemam baarax to ha tàggoon ak moom waaye tam tas fër mu ngi mottal su fekkee man lu ma cee dalee ngay xelaat gis nga na ko bala nga koo rey da nga koo gis léegi ma abal leen duñ ma dégg duñ ma gis salaamaaleykum salaamaaleykum war a fa yëkkun bu nekkee fikkoo ka sa ajili ci sama tooñ yi mm-hmm. muy lii ma dem min ajili ngir de ngir man su fekkee xelaat bi man man man man ngay xelaatal man lii la ma caa fekk mm-hmm. su fekkee la mm-hmm. fa ana man al ana ci léegi léegi rek astama danaa sàmm damay jël li may jël ci hôtel bi waatu firu ma tëb ma dem xabal leen wokk wi danaa wéetal haadihi buqaata bile pakk min nii ci man wokk firta danaa ko wéetal léegi man ma tas gental lii sama man dem wakkam misliha te bëri na kemam faaraxtoha tàggoonaa ak moom waye tam tasfor dana ma tasu te du ko jig mujjul fenn loolu la dëkki du ko jig mujjul fenn waaw toujours toujours nit ñi naan du ko jig te du mu ne man loolu la dëkki li yow la tiital wa yëkkun bu nekkee nag nazaran de ngir xool li naf si ka ñaa sa bopp te de wattandeku min xam si ka ci sa tëj su fekkee sa bopp moo la jaaxal ndax ba ñoo woo nit ñi su fekkee loolu moo la jaaxal waaw parce que naa war jot legul fu daalatal xabiis yi desite xabiis te nga tey na santi ba su fekkee ne yow léegi sa bopp moo la jaaxal li hmm. ma doon jox gars yi jaww mën nga ji mos ba ji mos rek def ni ñoom hmm. su ko defee mu buddi sa buubu hmm. xam naa men buubu nga am waaye danga ko yóbbu bu ñu xëyee bu ñoo jàmm lu ne naka man mi lal men buubu laa amoon yóbbu na ko def lu mën a ne ak nit ñi atata maanaam ba nga xóolu al mustax di yaa aji dimbandeku mooy kuy kalaame wala moo aji dimbale. Hmm. mooy ku ñëw kalaame ci moom suba kenn du la yóbbu ci yoon. Hmm. ndax dañoo xam ne yow dañ la nax rek. Hmm. wa waaye tamit xaaral daal di sax. la ka ñaala al mu mooy jàppandi sax la ka ñaala al mu sax ba di ci sama gannaaw. su ko defee su ma bàyyeekoo du tënk man beneen bi. wa illa soo mën dem wax ne ndesite xabiir bi. ah fal ma faral ma dawala daw de. xam laa antu saaba njëkk bu diree fët la. su jarra ak bu diree bët hmm. su fekkee nangu woo ñàkk sa mbuum mi nag hmm. mos lii hmm. a gaaw de lu ko moyen yow lañ fee yow de wat su abu haris ne su mahamada topp mu jublu istixraaj ma ci li nga xam ne fil bu yooti nekk na ci néegi mais ak yaasi ci ay kees ay porte monnaie bu tuxooti ak i waxaale mu ne mu dugg néegi nag de visité par sambar par sambar mm. mu ubbi kalpe mm. léeg mu tijji waxande mm. wa mu xaraf yastahlisu di jago xaalisata kulli maxsuunin aji seet lépp lu ñu denc denc bu mu ubbi rek seet la ci gënal borom wa jaala muqarrab ya saxlisu di jago xaalisata kulli maxsuunin aji seen lépp lu ñu denc wa nuxbata kulli masrohen ak tànneefu lépp lu ñuy xasagu onsonin ak lépp lu ñuy pees lu nekk rek muy jël la ca gën rek xataa xaadara ba mu bàyyi maa li nga xam ne alxaawu sànni na ko foog woo piitam kaas min mu mel ni yàq ustoxrija bu génneef na mu ko yuura moom moom ba nga xam ne hôtel bi yëpp ak waxande yi hmm. comme yax buñ seeño la lépp kafan la buub na lépp li ci baax yi buub na hmm. fala maa xamana ba mu hëmbee hmm. mu yaan maa li nga xam ne istafaahu tànn na ko wara zama te mu pakete ba mu hëmbee la muy hëmb takk ba mel naka paket wa sammara mu de wag han siraxa yi ñaari xasabu wa taxasama te mu laxasaayu mu takk laxasaayam hmm. wagi loxoom ba dem rek def hmm. aqbala jublu si na alayya ci hmm. ma jëmal si iqbala man jublu koo xam ne la bisa xoo doona mu asafaqata ñàkk kersa waxalaate mu summi asadaqata xarito dafa jam ma jox xarkana mu kurusul dara xarkana mu jàmbu ka la ma jox aqbala jublu si na alayya iqbaala man jublu koo xam ne la bisahoo doona mu asafa xata ñàkk kerta waxala ate mu summi asoda xata xaritoo ndax ñaal na la fil musahabati ci àndaale ilal batiha si jëm batiha dama bëggoon ñaan la dem batiha li wasal bi jekka ngir naa la sëyloo ngir naa la takkal bi waxraa ci seneen si ndaw mali xatin su daaji nañu ànd dem ba tiixa mm. suñu demee ma la fa keneen mm. <laughs> doo nañu ànd dem ba mm. bu ñu demee ma lijjanti la fa keneen xal la ka ndax ñu ànd na la il musahabati ci àndaale ilal ba tiixati jëm ba tiixa yow sa bi jëkka ngir naa la takkal bi oxraa ci danen si ndaw amali hatin su daa ji xoromu eh, du est ce que duñu ànd dem ba tiixa suñu demee ma la fa keneen ku xam ne xam naa dana baax lool daal teral bu baax ne faa xasamtu ma giñal la woo ñaal ko ma ne ko billati ci buur bi nga xam ne jaala woo def na Iisaa mubarakan muy ku ñu barkeel ay na maa kaana a nekk wa jaala ni mubarakan ay na maa kuntu ma giñal ko ci yàlla mi barkeel yonent yàlla Iisaa wala mi xanu te defu ko mi man bokk ci nga xam ne xaada wuruñ nañu fii xaalin ci hôtel ma ne ko maa ngi lay giñal ci yàlla misalal yonent yàlla Iisaa def ko muy ku xam ne fu mu mën a nekk mu def ko barke mm. man de laa xibala déet kattan mm. lii dama ñaal bi nikaahi hurratayni mm. ci takk ñaari góor yu jigéen wa muhaasarati darratayni ak ànd ak ñaari wujji ko hoo oh, problème bu ñaari jabar kooku man mënu ko doxal rida haasi yu hayyiju suxta haasi bu kii mere bu kii kontaane rek kii ngi heure bu ne mere kooku daal man mënuma ci dund nag mm. waaw heure bu ne la yàggee am koo xam ne yéen a ngi bokk di dund mm. mu ngi la mere kooku dafa métti mm. ridahaasi yuhayyiju suxtahaasi bu kii kontaane rek kële mer na fama enra bi ida suxta tey bu ne rek ki nga war dimbalante mu ngi la mere kooku dafa métti man daal moo affaire problème bu ñaari jabar kooku moom nag ma ci bi nikaayi hurratayni ci denc ñaari góor yu jigéen wa muasarati darratayni ak ànd ak ñaari wujj su ma qultu topp mu wax la woo ñaal ko ma daal di ko wax xawlal mutatabbin waxi aji jikko jikkoloo bitibaan yi ci jikkoom alkaayili kuraaji nattal la woo ñaal ko bisaan yi ci saam may ko waxinu bëgg a déggoo moom xam na koo xam ne soo bëggee mucc ci moom léeg-léeg rek nga wan ko li nga nekk sax na ma xaar nag nit nag lu du dëgg ci moom nag lu jaay mën a mu ne may ko waxinu mel ni lim nekk sax na ma su ma kullu topp ma wax la wa ñaar ko xawlal waxi aji jikko jikko la bi tibaan yi ci jikkoom mm. alkaayili kuraaji nattal la wa ñaar ko bi saan yi ci ne ko xat kafat nii doy dama al ula ndaw su njëkk si mm-hmm. faxran ci ndaw par mm-hmm. lu sàppul axara geneen góor te mm-hmm. lu xalaay ñaateneen si ndaw ma ne ko ah kay nga wutaat keneen waaye man kay jëlaale daa ndam lii waaw ah, takk gi kay ku mel amagul ci àddina loolu laa ko wax fa taba sama mu daal di muuñ min kalaami ci sama wax mu muuñ ndég li ma ko wax wadala fa mu jege si lintisaam yi ngir taxoo moon bëgg maa tatam waaye nit lu dul dëgg ci moom munu ko munu munu munu ci yàgg hmm. xaalis ne falla way to mallee xanu walil ko indaari samay fas mu tumuni waaw day ma peñalal hmm. la wa ñaal ko iswiraari sama jeng hmm. ba mu xam ne li mu def sabu waaw xëy na masla pour bëgg mucc ci moom ci la waxee waxinu wane ne mbir mi saf na ma waaye nit li dul dëgg ci moom munu ci yàgg tax bi bëgg yaatal affaire mu far du muñu rek caana boobu ana la yéen dajee ngeen ana fan mu ah, ba tii ah pour takkal la foofu ak keneen hmm. mu ne ko ah fi naa jël ndam li hmm. lii doy na ma ndam hmm. mel ni koy wax ko li ngay def saf na ma mu ree bëgg may jege ma jox ko gannaaw masku ko nag ci la wéyee wéyi ne yaa saarifan annil mawaddata wa zamanu lahu surur yaa saarifan ey yow aji soppat anni ci man al mawaddata cofeel yow mi nga xam ne dafa benn sabatuma la daal xarit gi ko bëgg a dagg wa zamanu te jamono loo ñaal na ko surufun soppat te xam nga jamono itam tey nii la ëllëg le la wa mu bi fii te daa ci yedd sama. Hmm. fii Fathi man ci gàcceel ki nga xam ne. Hmm. jaawartu dëkkaale naa ak moom. Hmm. taani falaasoo bi yedd ak tooñaakoon wala fittaakoon. yow mi ma yedd. ci ni ma def suma dëkkandoor yi. comme ni ñu war a yeddee ak nit ne tooñkat la yow mi ma yedd. wa mu ànd fii te daa ci yedd sama. fii Fathi man ci gàcceel koo xam ne. jaawartu dëkk naa ak moom. temps nii fan asoo bi yàlla dag tooñaakoon tooñ tooñaakoon. mu ne laa tolhaani bul ma yedd fii maa ci li nga xam ne ah tey dikkal naa ko li ma def nii. Mm. ba ma ci yàlla de xam nga banu lay moom du teree lay. Mm. la muy bu daggoo rek lay du jeex. Mm. fa inna nii man aaroo ku xam laa bi ci ñoom xam naa leen de. Mm-hmm. waaye xam ni nag war na tax ñu tooñ ko nag war na tax nga tooñ ko nag dëgg dëgg waaye nag xam nga la muy ñoom bu daggoo rek. lay du jeex. Mm-hmm. wala xam na sant wàcc naa. Mm-hmm. asalaamaaleykum. wala na sant wàcc naa bi walam arahum gisuma leen mm-hmm. yuram wane ñuy sàmmante addu yoo ma gan ñi mm-hmm. dama fi ñëw fekk leen bi mm-hmm. seedoo nekkul ci gan wa balawtuhum ma nattu leen wajattuhum ma fekk leen suyu fan ñu nekkam ay seggit lama sabaktuhum bu ma leen toggee ma settantale settantale gis na fii ni ay sagari nit rek a si ay sagar yi rek lañ waaw balaw tuum nattu naa leen mm-hmm. wajatu ma fekk leen mm-hmm. su yu fan ji rek am ay seggit mm-hmm. lamaa sabaktu ma leen toggee nattu naa leen seet leen seet leen ndekete ñoom ay sagar yi rek lañ seetlu <laughs> ko waaw waaw maa fi nekkul ci ñoom illaa muhibun raaji ragal loo in tamakkana bu jafande ko aw ma xoofun wala ku ñuy ragal ñoom daal aw nit la ñoo xam ne kuñ jekku rek toj sa bopp mhm. kuñ jekku ne rawee day ba dem mhm. loolu laa di gis mhm. laa bi safi yi xarit buy sellal xarit newu wala ba fii kuy matal kóolëre amu fii wala xa fii kuy teral ku baax amu fi wala xa sóob yërëmaa kóor itam amu fi laa gisee ku baax newu mu ne ba wasabtu ma daal di tëb fii ci ñoom mm-hmm. wasbata sii bi mm-hmm. kem tëb ak till mm-hmm. addari yi bu daa ji jàmbaar wala bu daa ji soxot alal xaroo bi ci xar gannaaw sa bopp te man jëkku naa leen ma gaaw tëjaale seen bopp bala ñoo tëj sama bopp bi rek ma def leen lu raw li bi def xar ma tëb fihim ci seen kaw. wal ba ta bi kem tëbëg till adari bu daa ji jàmbaar. alal xaroo fi jaxa. wa taraktu ma bàyyi leen sarhan ñeneen ñi ñu normal. nagam ñu ngi ne xëlas de. gàllankoor daanaka ñoom. su xoo naan da kaasal huutam kaasi dee. kaasam dee mel ni dee nañ. wasaak kamar hàtte. yéen sama loxo. fii maa ci li nga xam ne. képp tanaawu fàggu nañu ko. boobu te ñoom loxo mun ko noo koy toroxi bakkan lañ tey bu leen neexee waaw ah, wataa kaman xatte yeddi yi sama loxo hmm. bi maa ci li nga xam ne sanawu kotti nañu ko hmm. boom te ñoom roxuma boy toroxi bakkan bi hmm. su man sonoy du topp mu wëññeeku bi ma xam min ci màng xol wil ma jaani buraaji neex ci kottite wal koto bi ak i kottite ma topp pour man tey bis bu neex la jawla bi jawla bu am na jaax la talaw daal sabarun sabarun xaalim am naa ko daal tey daal baax na pour man topp su man danay topp mu wàññeeku. Hmm. bi ma xam ne min ci màng. Hmm. xol bil majaani bu daa ji neex ci kottuwaay. Hmm. ci ci ci kottite. wal kotoo bi ak i kottite. kon nag bu ñëwee ñu ne tukki ma neex ah buñ xamoon na mu ko xamee ah dana doy waat de dana waaw. dana waaw. wala taala ma xallaftu yàgg na bu ma bàyyee. makluman xataa ku ñu dem baljatam hmm. yëttoobu muy wër xalbi ci sama gannaaw hmm. lii du mujj fenn hmm. def nit njaaxum mu naan fu ngeen ko dégg fu ngeen ko gis te du mujj fenn la bi dëkkee wa yàgg naa merloo arbaabal araiki boromi lali ariika lan lay doon bu xam day am soo ndekoo kaay wa darani ki ak boromi sajaada yi wasu joo bi ak borom yi rido yi. Mm-hmm. patron yoo xam ne foog nañ jege. Mm-hmm. ñoom laa fay def luñ mënu dara. Mm-hmm. waaw wa tax yàgg naa merlo. arbabal araiki borom yi lab yi. bi arika la. mooy la bu am sukkandekoo kaay. wa dara nekki ak sajaada yi. bi dur la. xëy na dara nekk bi waaye sax mooy dara nekk. wasu joo bi ak rido. mufrad bi sajam wala kam balaxtu bari bu ma jotee mm-hmm. bii la tey ci sama pexe mm-hmm. maa lu xam ne lay te yib loxu mm-hmm. ko jotee bi suyo bi li ma mën a sottalee ci pexe ak xel borom jaasi mënu koo sottalee ci jaasi fekk jaasi xel mu sottee koy dimbalee ar rayu qabla sajaati huwa awwalun Hmm. mooy ra'yu hmm. wa hiya al mahallu thani hmm. sa jaam moo nekk ci al martaba thaniya xam nga tey ci misaal baynal fiili wal aranibi yaakaar naa ne booy jàng sawqiyaat ci hikayaatam ya da nga ko cee gis baynal fiili wal aranibi yaakaar naa da nga ko cee gis dégg nga dana bu baax a baax yaxkuuna anna ummatal aranibi qad axadat min assara bi janibi wabtahajat bil mawtinil karimi wa mawilil ayali wal harimi faxtaarahul fiiru lahu tariqa mumasriqan asaabahu tamsiqa mu ne gaañi dee nee nañu dafa am ay lëg yu xam ne dañoo sancoon dëkk defar dëkk bi ba dëkk bi baax ñu ne fi mu ne demoo fuñ nekk ñay dal di def dëkk boobu muy yoon bu ñëwee rek da leen raatale da leen raatale rek ah faxtaarahul fiiru lahu tariqa mumasriqan asaabahu tamsiqa noonu la def dëkk bi wa kaana fihim arnabun labibu asaba julla suufihi tajribu naada bihim ya masar al aranibi min alimin wa shairin wa katibi istahidu di dal aduwil jaabi wal ijtihaadu quwwatu diaabi mu ne fekk am na ci ñoom koo xam ne dafa muus bu amul kawar moo wax nañ def congrès bu xam ne kenn du ko wuutee na kenn ku nekk ñëw ak lam am ñi bokk sette sotti sotti ante xelaat seet noon bii duñu ko xeexee mu abal ñu ndax aw nit mbooloo bu ñu amee bu ñu ne fekkee par kenn néew na doole itam bu ñuy bennoo dañu am doole bu ñu bennoo dañu am doole. Mm-hmm. tey sayu gattax wi. Mm-hmm. boo koy damm par gattax. Mm-hmm. ah dafa yomb. waaye boo ko takkee ba mu des say nag. xëy ba bëgg damm say. bu baax a baax. loolu la leen wax. ittaxidu di dal aduwil jaafi. fal ittihaadu quwwatu diaafi. te lu mu baax baax mm-hmm. mu ne gaa yi wax ne li mu wax nag dëgg la mm-hmm. ñu ne congrès bi bis nangam la mm-hmm. mooy fa aqbaloo na raaya wa aqadoo lil ijtimaai raaya dinañ ko baax a baax yéen itam mbooloo bu ñu dajee itam dafa am ñoo xam ne ñoo yor baati mbooloo ma suñu waxee rek mel na que ne ñëpp wax nañ waaye congrès man la jegee ci kum ne mu wax lu ko neex ñu ne kon dañoo seet ci suñ biir ñett ñoo xam ne mérito nañ loolu. Mm-hmm. suñu waxee wax mooy suñu wax. seen mm-hmm. bu baax a baax. Mm-hmm. moo tax ne wantaxabu min baynihim salaasa. laa harama raaw wala hadaasa. du affaire waat nag kii mag la kii gune la. ku man liñ soxla rek la. bal nadaru ila kamalil aqli. waxtabaru fi daka sinnal fadli. noonu lañ ko defee rek dina mën a wéy. li nga wéyee ni mu yéeme hmm. bal nadaru ila kamalil haqli hmm. wa sabaru fi saaka sinnal sinnal hmm. mu ne ku njëkk ka mu wax mooy nañ daw parce que man na nekk da ko bëgg a da da koy dawee gars yi ñu ko yee eh, déedéet loolu doxul parce que fenn neexul su fekkee foo dem daw doo dëkk fenn ne al awalu lil xitaabi wa qaala inna ra'ya da sawaabi an natruka al arda li zil xurtoomi fa nastariha al arda min min adal xasoomi fasahatin arani bul xawaali ada adarru min abil ahwaali kay kay kooku du baax mm-hmm. kooku du baax <laughs> kooku du baax dégg nga mm-hmm. mu ne ku ñaareel ko moo jóg wax ne daal xam nga ku mel ni kundu ku bëri fexe la e dañ caa dem mu xelaatal ñu mm-hmm. suba dañ mën a xeex noon noon bii mu abal ñu suñ kër gi mm-hmm. suba dana jar sax ñun ñu jox ko ci ñun ñaar mu lekk leen su ko defee ñaar ñooñu nekk giñ nekk di njot ci dëkk bi dafa tax ñoom ay suhadaa lañ waaye bu fexee bañ dàq ñay moom lañ faa neexal de moom lañ faa al de moom lañ faa neexal de loolu du du xalaat loolu du xalaat moo tax wa wasaba saani hmm. fa qaala inni hmm. ahadu li saalabi cheikh ilfanni fal hmm. nadoo yumidduna bi hikmati wa yaxudu xidmati fa qiila la ya sahiba sumuwi la la ko ko jàpp noonu du la ko jàpp loolu may ko ko jàpp mu ne li ma ci xam daal bu kenn baxaati xel wàcc xam ne fi mu jàpp yoon nañ di def bi bu fekk du am xendal kenn ku ne lu man gas bu yàggee mu def pax def jàll su ko defee ñu tongu ko buy daanu ci pax mi rek bala yëngatoo jog rek ñii too suur ko mu abal ñu gaa ñi nag loolu nag mooy xalaat bi nag ñu def loolu mu sotti kon mbooloo mu ndekete daal lu ñu song du leen tër waaw ma ne wa wa wa wantada ba saalisu lil kalaami wa qaala yaa maasira al aqwaami ijtamiu فالاجتماع قوة ثم احفروا على الطريق هو يهوي إليها الفيل في مروره فنستريح الدهر من سروره فاستثوبوا مقاله واستحسنوا وعملوا من فورهم فأحسنوا وهلك الفيل رفيع الصالح فأمضت الأمة في أمان بهكاية بهذا loolu mooy li ma ci soxla dégg nga bu baax a baax. ku mën a wéy. ku mën a mën a wéy. dégg nga bu baax a baax. mu ne loolu la demee rek. Mm-hmm. gis nga ko man samay pexe. Mm-hmm. borom doole mun li ma ciy sottal. Mm-hmm. borom doole munu ci dara. wala kam balaaxtu bari na bi hiilatee ci sama pexe mm-hmm. maa lu xam ne lay sa yu bari na bu ma jotee mm-hmm. bi hiilatee ci sama pexe mm-hmm. maa lu xam ne lay sa yu la ko bu ko jotee bi suyo bi ci jaasi waqaftu taxaw na fii hawlin ci tiit moo xam ne turan def na tiital alus du gaynde yi meneen waqoo bi ci taxaw fii ci moom telu baax baax loo xam ne fitu gaynde mënu koo dékku maa nga se ko te suma yoon du ci ne moom la fi dëkkee woo xam tu bëri bu ma taxawee hmm. fii hawlin ci tiit hmm. moo xam ne turan def na tiital hmm. aluftu gaynde yi minal bu xoobi ci taxaw fii ci maw loo xam ne fitu gaynde mënu koo dékku maa engagé ko te suma yoon du ci nekk loolu bëril naa ko wala kam sabaktu bëri na bu ma tuuree deret te du mujj fen wakkam fataktu bëri na bu ma reyee te du mujj fen wakkam hataktu bëri na bu ma xottee xima unóobin karangak ñu am jom luñ ne kenn du ko laal mm-hmm. ma jaaree ca na ma neex mm-hmm. wa kam irtikadin mm-hmm. bari na gaaw moo bi xin guraaji halak halma fi dunoo bi ci bakkaar yi wa wa kam xufobin bari na gaaw ba te lu baax a baax bari na lu ma yëngatu yëngatu yu xiir wa kam irtikadin bari na gaaw moo bi xin halma fi dunoo bi ci bakkaar yi wa kam xufobin bari lakin na nii li nekk man nag ah dattu xadu rafet ak njortu bil mawla ci borom bi ar oo kay yërëmaakoon xaj na dafa jàpp ne moo ko moom yaman danal mawtu minhu billahi sannaka hassin rafetala sa njortu ci yàlla in kunta abdan musian mm-hmm. soo de jàm buy ñaawal itam mm-hmm. fa rabbuka allahu muhsin mm-hmm. yàlla mi sa borom moom muhsinun la xëy na dafa jàpp ne daal moom la ñuy wax a setloo ko baax a baax waaw yaa man danal mawtu minhu billahi dannaka hassin in kunta abdan musian fa rabbuka allahu muhsin baax a baax ne ko man <laughs> la yow man danal mawtu minhu billahi zannaka hassin hassin zannaka billah in kunta abdan musian yow soo bonee ba bonooral itam fa rabbuka llahu muhsin yàlla moom baax na baraw mbaaxaan rek kon man bi yàlla la war la war dégg mu ne ko man foofu laa loolu lay dund xaala xaarit nee na su ko defee nag turu yàlla moom fu mu fi dugg rek dana lu mu fa def hmm. wax na nag ba àgg na ci tudde yàlla ne bil mawla rauf hmm. xaari na falam man taa ba mu àggee hmm. ila hadal bayti jëm ci wile la jën nuur na filistin baari ci ci rongoñ dafa commencé jooy wala da te mu tëqoo filistin baari ci jéggulu commencé di jéggulu sama la ba mu jénguloo hawa xal bi sama xol al mun xarif bu daa ji génnoon naa ci moom pàcc mm-hmm. waaye sama xol sax mu ngi xen waat ci moom mm-hmm. wala def sama yaakaar loo ñaal ko mm-hmm. maa li nga xam ne yóru jaa def na ko yaakaaral lil muqtarifi ñaal aji fàggu bakkaar al muqtarifi ku daa ji nangu ja ku daa ji tudd mooy ku daa ji nangu lim ja ba ma yaakaaral ko li ñuy yaakaaral ko bàkkaar di tuub waaye di tuub gi de ba faala di jàmbur yi bokkagu ci la su ma innahoo topp moom giisal na dama woo rongañam almun halla bu daa ji dotteeku boo ko ba ko dee mu noppi nag mm. waxta mu bokk mm. jëraba woo gabakaam mm. wan salla mu yolleeku wala gàddu sagam dem fekk jël na li muy mu wax lim ni ñaar doom mu ne ko doon bi yaxtamil henul albaqi li def e eh, wallaahu yàlla albaqi may di fekk kon daal nañ dem ci jàmm xewal bi haadihi li kaye di ci bile nett le te mooy mu ne fala maar ay tu ba ma gisee mm-hmm. intiyaabal xayyati yooru jaan ju mag ja te mooy abu zaydin mm-hmm. wal huyati ak njaan sa mm-hmm. te mooy doom ji wantihaa addayi ak xàggal jàngoro ji ilal kayyati jëm ci gàjji jëm ci lakk te xam naa ne lii moom du lu ñoo baxee nii su ca pexe xam ñii niñ leen def buñ jógee su ci pexe amee duñ def lu dudul lu ñoo baxee ji bi li amee daa alim tuba wala xam lim ne hmm. na tara yuus yi naka sama yéex hmm. sama yéex a jógee hmm. bil xaani ci hôtel bi mañ la batul bijji la te dawaa ne ci doxadal wala xam ne man daal su ne suma bi toogee damay toroxa sama bopp ndax lu mën a xew man ma def li man lañ layee moo tax waaw man lañ layee fadamam tuma boole ruhayli sama laxas boobu laa bugg la sama hmm. hmm. si kaa zaman kon li ma bëriwul ba jabaatu ma dajale day ni sama lafi li rexlati ngir laxas pare na maa ngi dem ba bittuma fanaan laylati sama guddi keroog asri dara ñaan ila tibi jëm dëkk bu ñu ti wax tiib waxta si bu may sàkku tiyaabu allah yàlla alxati kaa jox ko baax na